waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatu Dakar People maa ngi lay nuyu di leen ziara si seen teewaay di leen ñaanal jàmm di sàkk si yéen ñaan di leen dalal jàmm di wax euh, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisaani yafqahu qawli euh, alhamdulilahi alladi amarana bitaqwa wa ibtiqaali wasila alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi din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 ci maanaam mbiri àddina yi ci utam alal wala kër gi ngay samp wala soxna si nga bëgg sax normalement danga ko war a seet saytu ko ne kii li may dugg lan la soxna si may dugg ndax suñ biddiw yi ànd na ndax suñ wërsëg yi ànd na loolu dañ ko war a xool loolu yëpp ci maanaam listixaar la si kër gi nga dëkk bala nga cee dëkk wala nga am pàkk bi wala bala nga koo def dara war nga koo xool place bi ngay jaayee di ko liggéeyee bala nga cee def dara war nga koo xool te loolu dafa am solo ci ci doomu aadama nit ki lépp looy def rek ci wàllu liggéey wala wàllu ñaan yàlla war nga koo mën a xool saytu ko ñun nag ku ñëw si ñun wala bala ñoo jëflante yow ci dara daneen def listixaar xool sa sa yaram xool say yëngatu ba pare doog a mën a jëflante yow doog a xam sa biddiw parce que doomu aadama dafa bëri ay mbir muy biddiw biddiw mën na nekk ndox mën na nekk safara mën na nekk suuf te loolu dafa am ci doomu aadama nit ki nag moo tax bala ñoo ñaan lante yow wala bala ñoo dimbalante yow danañ la fanaanoo daf listixaar sa yaram xool ko ba pare ko mën a jëflante yow yool wàllu ñaan yooyu mbiri pettaaw nag duñ ko laal alquran la ñuy laal moom la al yonent bi digle yàlla diglu ko ñu ci nekk muy listixaar di ko dimbalanteeg doomu aadama yi te yàlla may nañ ci loo xam ne képp ku ñu seetal wala ñu fanaanoo la dana xam say jafe-jafe daneen xam sa problème te sarax yu ñu lay tegtal boo ko génnee yàlla da lay dimbale ci kàttanu yàlla yàlla dana yombal say mbooleem xaajo incha allah mën nañoo xoolal nit ki rek def ko ay tegtal ak xaajo mi faju du xaaju sax ñu koy jox ay ñaan ay ay sarax waaw alhamdulilah soxna si li nga wax leer na nañ góor gi télé dafa bëri ci doomu aadama yi loolu yëpp nag ndox siiti da koy def ndoxu siti yi ngay dégg yëpp da koy def ay ay émori yëpp dafay dafay dafay dafay dafay sonal góor ñi parce que lu koy waral ndax ñoo composé sadi di ñoo composé muy ay émori ay ndoxu siti yooyu yëpp mooy waral góor gi télé waaye góor gu télé mbiri seytaan yi tamit da koy def gént di sëy gént di sëy wala di toog di foyee sa bopp di fu toog di foyee sa awra te dafay am si góor ñi ay dim nit oole di la wax loolu te loolu lu koy def rab da koy def yooyu moom bu amee si góor rab da koy def gént di sëy wala gént di ànd ak sa rakk wala sa mag wala ki nga dëkk wala ki nga bokk loolu rab moo koy def gént di sëy loolu dafay am dafay dem ba indil la télé da ngay toog sax mu tuusale si loo xam ne da ngay dem di foyee sa bopp di foyee sa awra ba jot sa bopp loolu télé télé la loolu dafay dem ba indi la tële te loolu rab da koy def day topp doomu aadama yi rab boobu rab bu soxor lay nekk parce que mooy dem ba sonal la di la tu tuuse ngay sëy wala ngay provoquer ay jigéen pour di sëy ak ñoom di gént loolu nag day dem ba indi la tële te tële euh, comme li ma la wax léegi ndox sit yi bokk na si yu koy def moom tële la yooyu nag dañ ci am nañ ci garab yu yu baax te efficace alquran la rek ba léegi génn alquran comme li ma lay wax rek man lépp lu may liggéey rek ci alquran laa ko teg ci yooni siraatal mustaqim yooni alquran laa ko teg te yonent bi nee na euh, alquran nee na adooni astajib lakum yàlla nee na ñaan leen ma ma may leen la in shakartum la azidannakum ngeen sant ma ma dolli leen kon jaam bi manut lu dul di ñaanlu tey ñaan comme yàlla ñu ko digal ñaan tey ñaanlu loolu nag dëgg yàlla ñu ngi ciy dimbalante doomu aadama yi ci wàllu télé télé dafa nekk loo xam ne dafa bëri doom ci doomu aadama yi dafa bari léegi waaye nag yàlla may nañ ci ay kàttan ay tegtal ci alquran la may nañ ci ay tegtal yoo xam ne nii dana am sunguf waaye lépp génnu alquran te yàlla may nañu kat eh, kii boobu boo xam ne eh, ci liggéey boo xam ne ñu koy liggéey ci alquran mbir mi mu ngi diire 41 jours nga koy naan 41 jours nga koy naan lenn li da nga koy sangoo bu nekkee ku rab jàpp beneen anam lañ koy fajee xam nga mbir bi bañ cee def dara comme li ma la wax rek dama lay xool dama lay fanaanoo parce que doomu aadama dafa doy waar te nit dafa bëri ay jeex jaax dafa bëri façon moo tax ñun lépp lu ñuy def rek dañ koy xool dañ koy seet te daneen buñ ko seetee daneen xam yoon bu buñ jaara yow buñ ko soobee yàlla ñu la ko joxee nga naan ko 41 jours lay diire da nga jot sa bopp te dootoo tële bi laa yom din sa awra bu tuutee dañ koy yokk dañ la koy yokkal ba ni nga bëgg nu toll awra bu tuuti dañ la koy yokkal te dafay am dafay am kàttan da ngay dëgër te dalay topp sa giiru dund ci kàttanu yàlla te lépp génnul alxuraan 41 jours leen la ko may moom lay diire ci kàttanu yàlla mooy tële ku tële waaye ku ko judduwaale moom duñ ko laal waaye kum dab danañ xool xam ndax lii rab la wala mbiri seytaane la bu soobee yàlla danañ ko jëflante yow ba mu hmm? mooy liggéey moom laa lay wax kum dab waaye ku ko judduwaale moom duñ ko laal parce que loolu yàlla ko teg moo ko yow waaye nag nattu dafay dab doomu aadama si dundam moo tax yàlla wàccee ay aaya yëpp pour ñu dimbalante nit ñi wa nunazzilu min alqurani ma huwa shifaun wa rahmatun lil muminin wàccee naa alquran mi njëriñ ñeel doomu aadama yi pour ñu ci dimbalante seen askan wala ñu ci jëfandikoo ci benn da nga koo xam wala nga ñàkk koo xam rek waaye lépp lu feebar bépp feebar bu yàlla wàccee mu bind ko bind na ko ci alquran pour ñu saafara ko ci doomu aadama benn nga xam ko wala nga ñàkk koo xam wala nga ñàkk koo gëstu alhamdulilah alhamdulillah kooku ñu ngi koy jàppalee bëri na fi ba léegi dañuy delluwaat ci njolo njollotoon ko rek ci alquran rek te alquran nee na euh, iza maritu fa huwa euh, moo ñëwati nit kii lépp looy def rek na nga ci gëstu xool ko ba pare doog ko xam ku ñëw nag si ñun ci wàllu këyit wax dëgg yàlla am nañ ci ay tegtal yoo xam ni da nga koy làmboo nomb gi génnu ci kaaraange la fi nga nekk kaaraange la ci li ngay wut ngay si benn affaire bëgg mu jot ko léegi léegi dala koy jox léegi léegi da nga koy am ci léegi léegi si kàttanu yàlla te génnu ci dafa ànd ak bayra ànd ak kaaraange ànd ak kuy ut mbiri kayit yooyu dafa bëri façon muy lii dalay may bayra da am bayra dañ lay xam bu baax ci bépp loo yëngatu ci bépp loo yëngatu boo demee daneen la ràññee jotaay boo toog daneen la fa ràññee wax joo wax dana am xorom saf nit ñi loo wax dana jëriñ nit ñi loolu bayraa koy def te nomb gi da koy joxe dafay ànd ak càngat muy ku wàll ku soxla kayit su këyit boo mënta soxla boo këyit boo mënta bëgg boo ko déposé wala bala ngaa déposé ñu jox la ko dem nga déposé ko da nga toog ñu oola ne sa këyit génn muy këyit yi biti biir réew mi këyit yi bitim réew mi war ngay liggéeyal ay ay ñu weex lépp 41 jours laa la koy jox samay liggéey yàlla dimbale ma ni si dimbale ma ni ma dimbale na ma bu baax si samay ñaan yàlla ba lépp lu may jëflante nit ki rek délai laa lay jox nga gis sa résultat nga faj sa soxla faj sa ajo yi ci mbiri këyit yàlla may nañu ci loolu muy mbiri bayra yàlla tàggatal nañu ci loolu bëgguñu téere am na am na cangat ni ñu amee téere noonu la amee cangat dafa am ñoo xam ne cangat cangat yi duñu am fu ñu ko sangoo dañu am fu ñu ko eh, ci toilette yi comme léegi toilette yi da ngay bokk ay nit yi nit kooku man koo eh, wutal eh, nombre gi bu nekkee koo xam ne moo dëkk këram mën na am fu mu sangoo fépp fu set fu leer te alquran la moo tax lépp lu ñu ci def rek dafay leer fu set mën nañ koo jox ay càngat yoo xam ne mën na koo sangoo 41 jours moom la koy sangoo. Hmm. ba léegi moo làmboog lii rek ba léegi moo làmboog lii rek dafay ànd ay càngat ku bëgg liggéey ku ku ku am problème liggéey koo xam ne dafay liggéey si foo xam ne bëgguñ ko comme si société yi nga nekk si bërëb boo xam ne bëgguñ la nga nekk si bërëb boo xam ne nit ñi dañ laa bañ yooyu yëpp tegtal yi làmboo alquran ay càngat yu lay jox ak nomb gi nii si kaw nga bëgg takk wala bëggoo takk comme jigéen ñi du bëgg a takk mën nañ ko jox mu sangoo ko am na loo xam ne mën nañ la koo jox dafa la ko sunguf nga suuroo ko yooyu yëpp ay tegtal yoo xam ne ci wàllu bayra la ci wàllu mbiri àddina la ci mbir doomu aadama yi la moo tax ñu wàccee ko te loolu moo tax alquran wàccee ko dimbalante doomu aadama yi képp ku ñëw jàngoro boo mënti indi danañ ko xool saytu ko def si jàngat doo cee mën a dimbalante yow waaye duñ ñëw rek ñu jox la suñu garab te xooluñ yow lan nga xooluñ yow sa biddiw lan la loolu yëpp lu ñëw dinañ ci dimbalante doomu aadama yi ci bépp anam incha allahu rabbi waaw jigéen ju mënul am doom moom it beneen anam la rek beneen fànn la jigéen ju toog wala mos naa am doom bëgg doom mu mu jafe kooku dañuy dimbalanteeg moom yëpp 41 jours la danañ ko jox lu ñu naan bu nekkee nangu na jëkkëram ñëw danañ ko jox pour mu gën lu gaaw pour lu gaaw daneen daneen jox danañ ko jox jëkkëram euh, mu koy laal wala moom mu koy mu koy mu koy sangoo wala moom lu mu naan si kàttanu yàlla si jigéen boo xam ne dafa toog am problème yi jëkkër incha allah ci yi problème yi am doom. Hmm. Hmm. waaw yàlla dogal waaye yàlla dogal it alquran moo ko wàccee timit mu ne bépp feebar bu ñëw ci doomu aadama wàccee naa alquran pour mu saafara ko wa nazilu min alqurani ma huwa shifaun ila axiri aaya wàccee na alquran pour muy saafara loolu ku mosta am doom am jafe-jafe doom nekk si sëy ko bu ñëwee buñ jëflante traitement mu am doom ci kàttanu yàlla incha allah te lépp alquran la yàlla ko wàcce ñu gëstu ko xam ko jàng ko nag parce que nit ki bëri na léegi ñuy wax ne mën naa mën naa waaye xam nga nit ki li olof Njaay wax saabu du fóot boppam te nit ki mënu wax ne lii laa man te ñëw ci moom wala sooboo ci moom jëflante sama garab képp ku ma jox garab bu la neexee bul jël beneen garabi jàmbur jëlee sama garab nga naan ko ba délai bu ma la jox boo gisul résultat rek nga wax ak man wala nga oo ma téléphone. alquran nekk lépp alquran la amul sungu bu ci rax amul lu ñu ci def alquran la amul dara lu ci nekk lu dul alquran moom lañ ci def. waaw ñu ñu xamul parce que Sénégal bëri nañu toog di leen ñaanal yàlla te bougé wuñ te génnuñ télé wala génnuñ fenn équipe boo xam ne la ñu ngi lay ñaanal yàlla comme ni la ñeneen di leen ñaanalee rek ñu ngi lay ñaanal yàlla te ñu ngi jëm si euh, si final mënuñ lu di leen yokk courage tamit di leen ñaanal yàlla waaw di leen ñaanal yàlla loolu daal mën nañ ko ci ci suñu suñu ñuy fubal man moom yooyu du ma ci du ma ci xool te bu ma bu gisee sax anki dinaa ci xool parce dana am ñoo xam dañuy dox seen tànk sol seen dàll ñëw ba si man laaj ma ma wax leen ak kii waaye nekkul loo xam ne looy wax en public la nit ñi di ci nit ñi di ci di ko bàyyi xel wala di ko di ko toog di ko xaar lu ñu def ñun dañ koy def Sénégal la suñ dëkk la suñ réew la man lu du ñaanal ko yàlla may ko ndam comme ñoom ñoo ak tey football man lu di leen ñaanal yàlla incha allah am leen yaakaar ne yàlla du tas yaakaar te ñu ngi lay yàlla te yàlla bu yàlla tas yaakaar si kàttanu yàlla ku ñëw moom pour ñu xoolal ko ci danañ ko ci xoolal wala ku ñu oo ñu xoolal ko ci danañ ko ci xool waaye du nekk lu ñuy xool pour ne toore ne Sénégal nangam Sénégal nangam loolu moom nekkuñ suñu domaine lu ñu liggéey jaam yàlla yi alxuraan la képp ku ñëw wax ñu soxla danañ ci jëflante yow ci kàttanu yàlla incha allah. léegi ñu ngi tuumaal euh, ne voilà moom la. waaw ñu ngi dégg nañ ko comme ni ko ñu déggee rek di di di ko di ko wax ne fekkee lu ñu wax dëgg la ci moom walla lu am la na xoolaat boppam xam ne jullit la doomi jullit la na rafetaat toogaayam defaraat toogaayam ne xam ne yàlla lu lu ñu koy tuumaal walla lu lu fekkee lu am la yàlla nag moo xam waaye yàlla na ko ci yàlla e, dimbale ba tegg yooyu ci moom nag xam ne yooyu du mbir yoo xam ne la mbir yu xaraam la imaam imaam nag nit ku baax la xam nañ ko ci ay waxam xam nañ ko ci ay waaraateem xëy na lu mu wax rek am na fum ko teg waaye nen waxtaan ba juboo rek eh, waali nag doomi jullit la doomi taalibi la te foo fekk lu baax lay ngay gi dégg moom lay def ci doomu aadama yi ci dimbalante yi ñoo ñu baax kon kooku mënuñoo wax ne jël verdict rek ne ko lii la wax dëgg yàlla te te xamuñ lan la waaye fekkee ne liñ koy tuumaal ci moom la nekk yal na ko yàlla teggil wax dëgg yàlla ma la parce la hmm. hmm. dëgg la <laughs> dëgg la li nga laaj yëpp am na solo laaj nga laaj mën nañu wax ne laaj nga lépp ci loo xam ne ñuy jëflante doomu aadama yi jëflante doomu aadama yi képp ku indi soxla ci ñun wala feebar loo xam ne nii feebar boo xam ne mën nañ koo faj te balañ bala ñoo wax ne mën nañ koo faj sax gannaaw buñ ko xoolee la te buñ xoolee danañ gis ne kii mën nañ koo faj buñ xoolee danañ gis ne kii mënuñ koo faj lépp lu ci am rek loo xam ni mënuñ ko danañ tax ne mënuñ ko te yàlla bind lii ñàkk man am lii wala yàlla bind lii ñàkk man lii luñ luñ man danañ ko difla jëmbal dimbalante doomu aadama yi luñ mënut it danañ ko wax ne mënuñ ko dëgg yàlla yàlla rek moo man moo am moo kattan te moo wax ne jàng leen wala gëstu leen wax dëgg yàlla gëstu leen nag ba yaakaar ne xam nen te ñu ngi dool dolli di gëstu tooguñu ba léegi feebar boo ñu wax buñ ko mënu di dinañ ko bind dem jàngi ji ko xam ko buñ toogee génn fii rek xam ne ne ñu ngi ci yooyu ay activité wax dëgg yàlla lépp lu ñu mën danañ ko jëflante doomu aadama yi waaye feebar moom boo ñu indi danañ ko xool buñ ko mënee faj dinañ ko faj ci kàttanu yàlla buñ ko mënu dinañ wax ne mënuñ ko insha allahu rabbi waaw di leen ñaanal yàlla Dakar People di tàggatoog askan wi di wax Sénégal yenn yàlla daf fi naataange kilifa gi génn fi wàññeeko fi muy Ousmane Tanor ñu xam ko wax dëgg yàlla mu nekkoon politicien bu mag mën nañoo wax ne daanaka dañoo judd rek fekk ko fi wax dëgg na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla xareel àjjana yal yàlla wuti ko ci njabootam barke alxuraan mu nekkoon kilifa goo xam ne ñëpp xam nañ ko surtout ñun boori Saalum wax dëgg yàlla yal na yàlla yërëm ko te yéexe ko ëwfal suuf si kawam wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh